waaw doléance yi cest à kenn mënu ko lim dafa bari parce que loo xam ne dafa yàqu ay plus de trente ans ans doléance li ko yàq lépp mënoo koo lim boo tax ñu def ne ànd defaraat suñu liggéey daf ci am nag ay doléance yoo xam ne moo war a jiitu yi ci jiitu mooy li ñu gën a sonal mooy carte mareyeur parce que carte commerçant da koy day am ans carte import export day am 4 ans nga di ko renouveler chaque année à 30 000 francs kooku am na ñoo xam ne mareyeur yi gën a tuuti di waasi jën loolu mënuñu ko donc kon dañoo war a yemale ñëpp nga xam ne carte mareyeur ku ko junniy nit yu fay carte mareyeur moo gën 100 personnes yuy fay carte mareyeur donc kon ci cadre massification boobu dañoo war a ànd ak état jàpp képp koo xam ne yow profession ba ngay liggéey yaa nga ca tonnes amul benn camion mareyeur boo xam ne nii mën na yab vingt dañuy ñëw ci pont bascule taxaw di rang ba tardé marché beneen bi ci dañuy ñëw ci pont bascule yéeg ñu parce ay deux cent mille francs ay trois mille francs vraiment loolu mënatuñ ko fay donc dañuy ñaan président de la république mu defal ñu benn dérogation boo xam ne oto jën du jaar ci pont bascule ba dafa tardé wala mu di ko fay ne métier ba nga ba nekk di ko dund kon ñoo ñoo yor métier bi kon donc ñooñu mënoo wax ne yow yaa leen di jiite mm. te ñoom ñu nekk en activité loolu moo ñu tax a jóg parce que dañoo sonn ci liggéey bi te gisaguñ amuñ benn interlocuteur boo xam moo nekk suñ diggante ak état métier bi nag ñi ko yor di ko doxal ñoom ñoo ñëw toog seen kanam nag jiitalutuñ kenn dañuy def seen massification tout seen comité électoral dem congrès fal seen président mu nekk interlocuteur entre le marieur et l'état